على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين bokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw nuyoo bi ñu leen di ziyaara ci bis bu mag bi ci béréb bu sell bi ci weeru tedd wi ñu bàyyi ko ci fàttaliku xew-xew bu mag a mag ci lislaam mag lool ci yoonu murit xewoon ci guddig ñaar fukk ci weeru tamxarit ci atum junni ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn muy ñibbisig sëriñ bi ci dëkkam bi mu doon xew-xew bu màgg màgg bu rëy bu am jeexit boo xam ne sëriñ bi daana ko waxtaane daana ko junju am lu baree bari lu mu ca daa aj ak yu bari yu mu daa wax ne dana am ginnaaw bu loolu xewee muy xew-xew boo xam ne kon saa yi ñu tolloo ci di ko fàttaliku am na ay bind yuñ ci war nafare ngir jariñoo ko ci suñu dunduk tey bokk na ci bind yooye xew-xew boobee la muy màgg-màgg ak la muy rëy-rëy muy fàdduk sëriñ bi ci bëti nit ñi teewul mbooloom taalibe yi am nañu ànd nañoo seen xel ak seen sago ba sax ca la nga xam ne ca la bi bàyyi te loolu lu jafe la saxaaba yi nga xam ne ñooy suñu royukaay ci diine bu ñu masaa jortu ne xeexu bi noonu am na ak bañ bañ bañ demee ba mu wóor leen am na am na ñoo xam ne jaxasoo nañu ba jàppoon ne kon la ñu nekkoon dañ caa war a daal di bàyyi dañ ko daal di bàyyi ndax kañ ca àndaloon gisatuñu ko ci xareb Uhud ba ñu siiwalee xabaarug ne yonent bi sallallahu alayhi wa euh, jël nañ bakkanam am na ñu daal jàppoon ne kon yëf yi daa war a yem foofu. kon nañ daal di gaaw dagg lii ñuy def muy xare bi te del te te daw ba alxuraan wàcc yedd leen ca loolee bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam dëkkaaleeg itam am na ci magi saxaaba yi ñu àndoon ak xaal ba jàppoon ne loolu moom du lu war a mën a am ba am ay wax yu ñu wax yu rëy waaye Seydina Abubakar Siddiq moo ñëw yéeg ci minbar ba delloo saat xel yi xam le ne yàlla miñ doon jaamu koo xam ne nii ne ki ki nga xam ne moom la yàlla yónni woon daal moom boroomam woo na ko wàcce na ko liggéey koo xam ne maam nga doon jaamu kon xamal ne moom nekkatu fi waaye koo xam ne yàlla nga doon jaamu yàlla mi ko yónni woon mu doon ko wooteel di leeral aw yoonam koo xam ne yàlla moom nga doon jaamu yàlla moom day dund te du fi jóg mukk booba la xel yi dellu siwaat ñu xam ne kon dañoo war a sax ci seeni pas-pas sax ci li ñu war a def ba ñoom itam seen wàll ñëw ñu fekki ko loolu nag su boroom defal na tawfiq mbooloom taalibe yi toppoon sëriñ bi ba xeexoo bi ngi màgg-màgg taxul ñu jàpp ne dañoo war a bàyyi seeni pas-pas wàcc yoon wi leen sëriñ bi tegoon dañoo sax ci seeni pas-pas sax ca lañ daa def sax ca lañ daa wax euh, seen kem kàttan ba seen boroom jële leen fi loolu kon bind la bu war a jàng mooy képp koo xam ne fas nga kóllëre ci yàlla ak jëmm boo gisatul jëmm ja it yàlla ma taxoon nga fas kóllëre gi moom du fi jóg jëmm ja la wàllam jeex waaye yow da war a sàmm kóllëre gi ginnaawam ba ba ngay jeexal yow itam loolu bind la buñ ci war a jànge minal muminina rijalun sadaqu ma ahadullah aley fa minhum man qadee nahbahu wa minhum man yantaziru wa ma baddaloo tabdila kon wa ma baddaloo tabdila mooy wàccuñu yoon wa ñu jaa nekkoon bàyyiwuñu lañ jàppoon delluwuñ gannaaw ca lañ daa def dëpp ñu yoon wañ sóobu woon loolu bind la boo xam ne kon taalibe yépp war nañu koy jàngee mooy dañoo war a sax ci njàngalem sëriñ bi ak yoonam ak lu jamono yëngu-yëngu ak lu tiis rëy rëy na ko sam xel ne jàkk dem raw na say bët bu la fàddoo nag saxal caram santaane loolu kenn ci magi taalibe yi wax kon loolu bind la bopp saa yu accès ci xew-xew bi mel nii war nañoo jéem a fat fat feddalikuwaat ay kol euh, suñuy laxasaay gën a amaat ak dogu ci sax ci yoon wi nga xam ne euh, ci la ñu wowoon bu ñaare bi mooy mbooloo ma la xew-xew bay rëy rëy teewul ñu boole seen bopp àndandoo nekk benn tënku ci kilifteef kilifteefuk ki nga xam ne moo wuutu jëmmi sëriñ bi ci kaw suuf mooy cheikh Mouhamadul Moustapha radiallahu taala anhuma kon bennoo googu ñu bennoo àndandoo def benn say tënku ci kilifteef euh, loolu it bind la bopp dañ ko war di jàng ne jamono ak di demee rek war nañu tënku war nañu am kilifa war nañu tënku ci kilifteef war nañ koy war nañuy war nañ cee yamale ndax day lu mënta ñàkk ci doxuk àdduna waaye mënta ñàkk itam ci dunduk diine mooy am kilifa te tënku ci kilifteef tey topp ndigal di bàyyi tere mooy waral ñuy jaayanteeg euh, kilifa ci ne ko yow lañ jiital loo digle ñu def ko loo teg tere ñu bàyyi ko euh, te la ngay digle la ngay tere lépp it day dëppoog ndigal yàlla ak i ak i tereem kon loolu bind la buñ ci war a jànge mooy nangu kilifteef ak sax ci ak lu jamono yëngu-yëngu ak lu mu soppiku soppiku ñetteel bu mooy kilifteef gi kiñ jiital mu nekk kilifa doxinam ba mu doxoon mooy Cheikh Mouhamadou Moustapha radiallahu anhu nga xam daa tegoon tànkam ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, di jaar ci yoon wa nga xam ne ca la sëriñ bi jaaroon mbooloo ma topp ko mu jaar ci yoon woowee moom it ànd ak mbooloo mi den ca wommat jub di digle ak njub mës xam lu dib safaan te ku tey di ko moytul fu mu toll tenku ci sunna si bi sallallahu alayhi wa di jëfandikoo xel mu rafet di diisoo euh, di ànd ak ñëpp ci kenn ku nekk fa sa xel toll ak sa jikko nu mu demee mu fexe rek ba ànd ak yow ci àndin wa gën a rafet ba nos bi sàmm lépp dox ba sos li ñuy tuddee alxilaafatu rachida mooy kuutaay lu tege ci yoon mu jëkk koo taxawe rafetal taxawaay ba ñëwaat ginnaaw ñëpp ci ay njabooti sëriñ bi ba ci doomam yi fi nekk ñoom ñëpp ñu tege ci yoon woowu loolu itam dañuy jàpp ne kon saa yi xew-xew bi dikkatee dañuy jàpp ne loolu mooy xilaafa rachid woowu tamit kuutaay lu tege ci yoon gi nga xam ne jàngee woon nañ ko ca xew-xew boobee lu war a sax la ba faw di wéy di wéy loolu kon ay bind la yoo xam ne saa yi ñu tolloo ci xew-xew bii war nañ koy fàttaliku di ñaan suñu borom fayal nu sëriñ bi dolli ñoo saxal ci ngërëmam te musal ñu ci lépp luy gàll lu ñu ciy gàllankoor musal ñu itam ci seytaane fayal nu itam mag ñu baax ñu nga xam ne e, ñoo fekkewoon woon xeexu ba dund ko te dox ca doxin woo xam ne tax na tey taxawaay yoo xam ne tax na tey li sotti lépp sotti gannaaw ba ci seen taxawaay yooye la jumaa ji ñu nekk sottee ci la dëkk bii ñu nekk dunde ci la lépp lu sotti ci yoonu murit ci taxawaay yooyee la sukkandiku ba sotti kon ñooñu yàlla leen yàlla fay te taas na ci seen barke te xiir ñu ci ñuy jéem a xam seeni doxin te di leen jéem a roy wax nañu nag ne xew-xew bii bari na lu ci suñ bi aj aj lu mu ci daa wax ne bu amee nangam ak nangam ak lu mu daa wax ne bu bu ginnaawam dana xew bokk na ca lam daa wax daana wax ne bis bu bu ma ñibbisee ca sama dëkk ba ba sama sama jumaa ju mat lépp loo xam ne lu fa jafe la dana yomb kon lépp lu am ci barab luy am ci barab bu mbooloo di dund ñu aajowoo ko su boobaa léppay ñëw léppay yemb loole bokk na ci lim daa wax te ñu ngi koy gis bokk ci mbaax it nee na boroomam wan na ko lu ba wan na ko liy xew gannaawam ba am na ci lu mas a wax sëñ Maxtaar Bintaloo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 أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول kon bokk na ci lim daa wax ci luy xew gannaawam lu mas a wax sëriñ muxtaar bintaloo ne ko muxtaar day sama borom mën na ma mbooloo mu bari mu ñëw sama ginnaaw ñoo xam ne ña ngay dox jëm sawara te muxtaar day bu bu buñ taxaw dañ àgg te moo ne day muxtaar doxuñu dañuy daw te murtaada li ci gën a yéeme mooy ñooñee man lañuy tuddoo dañoo wax nañ ne man lañuy tuddoo loolu kon euh, moom it wax la joo xam ne ju raglu la joo xam kenn ku nekk ci nun war na ci bàyyi xel di ci di di xool boppam di càmbar boppam ci yoon wi mu jaar ba xam yoon wi yi fan la jëm ak kan moo ci njiitam alquran moo ñuy wax ne inna sheytaana lakum aduwum fattaxisuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashaabi sa'ir seytaane mooy seenub noon seenub noon la da ngeen ko jàppe ab noon ndax kat moom waxtu wu nekk mi ngi woo mbo mi ngi wut mbooloo muy farag moom ndax mu mën leen jiite yóbbaale leen sawara ba nga xam ne wóor na ko ne moom ci la jëm kon képp koo xam ne ma nga dox jëm sawara rek mi nga ànd ak seytaane la àndal kon loolu day tax nit ku nekk war a bàyyi xel ci yoon wi nga jaar ak ki nga àndal ki ngay roy ak ki nga topp ba xam fu mu jëm ak yow sëriñ bi nag bindoon na ab dénkaane boo xam ne waxoon na ne dénkaane bii mooy loo xam ne ku ci tënku yow danga mucc ci ñu seytaane di fiif di leen yóbba di leen yóbbaale ma ngi koo tàmbale ci qitaatun taqtaamu bayna al muridi wal marid ay bayit yoo xam ne day teqale diggante ki ki doon murid da koy day dox digg day dox diggante ak seytaan mi nga xam ne moo fétteerlu kon la wax ci dénkaane ba mën naa bu xajee ci xajul ci waxtu it ñu junj ko rek mooy wasful muridi tarkuhul iraada li wajhi man yafalu ma araada man lam yurid shay'an siwa mawlaahu yasil lahu wa xayrahu awlaahu ci ñaari bayit yi da cee war ne pas-pas bi ab taalibe war a am te mooy def pas-pasam maanaam jubloom ak jubluwaayam ci àdduna muy am ngërëmu yàlla bépp bëgg-bëgg bu jëmul ci yàlla mu bàyyi ko ngir jëm yàlla bañ a bëgg dara lu dul yàlla mbaa lu koy jegeel yàlla di ko ca jëmale kon képp koo xam ne am na bëgg-bëgg bu jëmul ci yàlla alal jiital na ko mbaa daraja mbaa bànneex mbaa leen lu mën a loo xam moom la bëgg rek def ko mu di bëggam ba ba dundam yépp mu jëmale ko ca ba mu jeex tàkk kon kookee wute nag pas-pas bi nga xam ne moom la sëriñ bi wax ne mooy pas-pasu taalibe kon loolee day daal di mel ni ku dox ku ku dagg digganteem ak euh, sëriñ bi wala yaas billah ànd ak seytaane kon ki bëgg a mucc ci topp seytaane day wéral pas-pasam ci sëriñ bi def ak jubloom muy jëmmi yàlla bëgg-bëggam bi gën a kawe na doon rek li yàlla bëgg mooy na doon ngërëmul sàkku ngërëmul yàlla lépp lu muy wax mbaa mu koy def mbaa mu koy mel mu di ko def ngir sàkku ca tuyaabay ëllëg ak ngërëmul yàlla bañ caa wut benn njariñ boo xam ne bu teew lay doon bu jëm ci àdduna kese kon boobu mooy pas-pas bu njëkk mu ne képp koo xam mel na noonu nag pas-pasam bépp maanaam nammeelam gépp jëmale na ko ci yàlla nga xam ne namu dara lu yàlla doxul jëm fenn fu dul ci yàlla deful lenn lu mooy ngir yàlla kookee dana àgg ci yàlla te yàlla dana ko jox la mu yaakaaroon ci aw yiw ba jëm ci moom mu ne nag kon loolu ku ko def ku am pas bu mel nii nam mu jëmmi yàlla ci sa dund gépp kon dangay ngay fexe ba am kilifa da ngay wuti kilifa goo àndal mu yóbbule ci yàlla ma nga nam yàlla ma nga bëgg a àgg ca moom yàlla ma nga bëgg a am ngërëmam ma nga bëgg a xam aw yoonam wutal kilifa gu la teete ci yoon woowee fasluk ala yaday murabbin naasixi yaquudu li ilaahi bin nawaasixi fa man taallaqa bi waasilin wasal wa man taallaqa bi aksihin fasal fa man ala gayri ilaahi dallaka fa firra minhu innahu adallaka wa man ala ilaahi dallaka fa in xaalaftahu fa lil maridi tatmain isil murabbi laa yuridu fi lmurid illa alwusula naajiyan min almarid mu ne yow mi bëgg am ngërëmul yàlla soobu ci yoon wi ma jaar ànd ak man wutil kilifa goo doxale ci sa digganteeg sa boroom muy koo xam ne ab yarkat lay doon ak jubbantikat lay doon ku laabir lay doon koo xam ne ay waxam ak i jëfam ak i melokaanam ak itteem lépp day jëmee nit ci yàlla di ko ci xiir mu ne nag koo xam ne jàpp nga ci ku yegg danga nga yegg waaye ku jàpp ci ku yeggul doo yegg ne nag képp koo xam ne ànd nga ak moom mu wan la lu dul yàlla bàyyi ko fa te xam ne kooku dafa réer dafa lay réer boo ko toppee waaye nag koo àndal mu wan la yàlla nag boo ko wanee wanatee ginnaaw kon yow seytaane nga bëgg àndal ndax ki ki lay yar di teg ci yoon di la jëme ci yàlla amut ci yow genn bëgg bëgg nga àgg ci yàlla rek mucc ci pexey seytaane kon foofu wane na ne kon faw nit ki dana am kilifa bu ko mën a aar ba seytaane du ko fif kilifa gay day doon ku mat kilifa koo xam ne moom ci boppam jaar na ci yoonu njub teg na tànkam ci sunna Yonent bi sallallahu ak ci sharia ak ci xaqiqatul munawara ba ku ànd ak moom mu mu nga mën a aaru ci pexem seytaane wa yaqtadi al aabidu bil muttabiin li sunnati rasuli ahmad al amin man amaru bi taati arrahmani wa xaddaru mu ne képp kuy wut di wut kilifa seetal ku teg tànkam ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa nga ànd ak moom mooy koo xam ne dalay xiir ci jaamu yàlla te di la moytuloo topp topp topp seytaane euh, kon da ngay am kilifa te na kilifa ga nekk koo xam ne tege na ci yoon nga ànd ak moom ci yoon woowu mu lay digal lu baax nga di ko def mu lay tere ab safaan nga di ko bàyyi ngeen bokk sax ci yoonu jub bi ci toppaat nee na mooy euh, faqaddim alaqaida alsunniya wa lazim alibadata almardiya wala takun multafitan li gayri man lahu alibadu walfialu walzaman mu ne nag boo jëmee ci yàlla li nga war a njëkk a def mooy jàngil xam-xam xam-xamu tawxid xam-xam bi lay xamal nooy wéetale yàlla jàng ko ba say pas-pas wér dëppoog sunna nga takkoog jaamu yàlla gu ñu gërëm gu tege ci sunna te bul def benn yitte bul am yitte ci kenn ku dul yàlla mi nga xam ne moom jaam ñi ak jëf yi ak jamono yi euh, kon waxit ne euh, kun muminan wa musliman wa muhsina in rumta sayan ilay toxsina na nga sax ci doon ku gëm yàlla gëm gu sell di ko jaamu jaamu gu tege ci yoon tey rafetal di sellal gëm yàlla mooy musal ci kéefar jaamu yàlla mooy musal cig caay caay ak ku kàccoore waaye sellal moo lay musal rafetal mooy musal ci ngistal kon lii daal ab tënk la bopp sëriñ bi waxoon na ko ngir ñu mën a jaar ci yoon wu ñu musal ci topp seytaane asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.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 محمد رسول الله الحمد لله الذي خلق العوالم وزين السماء بالنجوم والأقمار وأضاء بها الأنجاد والأغوار وأظهر فضله فضل نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم وعلى جميع خلقه في جميع ما مضى وما ياتي من الأخصار وصلى وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أولي الأيدي والأبصار أما بعد فيا عباد الله من تمسك في كل الأعمال بالكتاب والسنة وحافظ في كل الأحوال على ما فرضه وسنه فقد اتبع هداه ولا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن أمر ربه وأطاع الأمارة بالسوء فقد جفا وتعرض لأسباب السقاء ومن حاسب نفسه ووافق الشريعة عمله ودام عليه ولم يخالفها faqad rabih waalamu annama fi alaxirati xayrun wa abqa wa alaykum alla tazaalu xaa'ifiina wajiliina musfiqiina min xaatimatikum li annaha xayru maalumatin lakum li anna alxaatimata tatbau saabiqata fa man xasunat saabiqatuhu salimat xaatimatuhu jacalana allahu wa iyaakum mimman sabaqat lahum min allahi alxusna amin الحمد لله الذي خلق العوالم وزين به الأكوان بها الأكوان والأضاء بها الأبجاد والأهوار وأظهر فضله على جميع خلقه في جميع ما مضى وما يأتي من الأحصاف نشكره على أن حبانا به من ذخائر الخيرات ما تكل على حصره الألسنة والأقلام ونبرأ من حولنا وقوتنا براءة إذعان واستسلام أما بعد فيا عباد الله تمسكوا في في كل الأعمال بالكتاب والسنة وحافظوا في كل الأحوال على ما فرضه وسنه فمن اتبع فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكر ربه وأطاع الأمارة فقد جفا وتعرض لأسباب السقى fa innahu subhaanahu manna alaykum bi nabiyikum alladi kuntum bihi afdala al umam wa sabaqtum bihi wa in taaxartum man salafa minhum wa taqaddam qaala taala kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas taamuruuna bilmaarufi wa tanhawna anil munkari wa tuuminuuna billah wa qaala aydan falyahdar alladina yuxaalifuuna an amri rabbi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim wa maa sawwaa subhaanahu bayna almuxsini walmusii yowma aljazaa am xasiba alladina yacmaluuna alsayiaati an yasbiquuna saa ma yaxkumuun wafaqana allahu wa iyaakum li tariqatihi almuthla wa alhamana wa iyaakum li tadabburi ma alayhi min alqur'ani yutla yaxfiru llahu lana wa lakum wa li saa'iri almuslimin amin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 allahu akbar allahu akbar allahu akbar asalaamaaleykum. مسلما إنني هزت بالإهلاء المين من جميع الأذى وكل العين إنني هزت بالإهلاء المين جميع الأدى وكل لهين سارف الهلمة لرب تعالى راجيا ساق يهو بهما إمعيني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 تجن خياد الحروني من به هراب مروداسا بن حنيد قادوا تائعا له أمروني وهو فاخري وعروتي وجليسي بأهادي سيد المزايا المكين أحمد الحامدنا أحمد غوزي ولربي بدعوات الكركوني يا إلهي عليه صل وسلم مع للواه لليقين من صحاب تبته لوكيل قد هداهم بنور حق اليقين رب هب لي استقامة وانطلاقا بالمراضي والتم عني نفيني يا إلهي يا من عليه اتكالي فك كبلي بروض أهل سفيني عجل الفات هوى الدجود بفيوض محجلات سكبا فيك بالدجون ربي وافكك أسري ورهني فإني بذنوبي مكبل في سجوني ربي إني عبد كثير المعاصي فالمعاصي حائي وبائي وسيني ربني رب رقيني رمشاني ذكلن قبل فاء وسيني xallini rabbi xallini bilmasaya misla chinin min qablihmi min wachini listajib dawati bihma faagadanni وبما فاق ربي كل غنوني هب لي الكشف دعوه من وساعي وامحو عني ما كان مثل جنوني هب لي اليوم يا إلهي رزقا صف لي كالكلي بغير ريوني واعف عني وعني يا ملح حقوقا للبرايا والتقدي عني يديوني والتجوني بأن أكون خديما للكتاب العديد في كل حين هب لي اليوم أغزادي نيم قائم التاليا بغير الهول لكتب إسرار والي همداه وهدى سنة الآمين المكيل صل دهبا علي ربي وسلم والتدم لي بإهليك سكوني والتدم لي تلاوة وخياما في الليالي وارفع دهوى من شوني بمامي وملجائي ورئيسي وبه سر مدى تهوى اللموني والتهم لق تفاءه باعتقاد ومقال كالفعل وقت قطني وبه زاد الأحد عني والتصن لي عنهم دهوى من بطني يا مغيثا يعين كل فقير فك كبل الذي غداك الرهين ربي بالمصطفى المخفى به والطبيب من العقبى للمهين لاستجيب ولتصفي قلبي ونور واسعا واعيا جميع المتون والتجو